قد سكن اضطراب لثيبه لما رأى ما في البقاع سواها دار حبيبي قلوبنا دعواها دار حبيبي ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسوى قولي أما بعد الحمد لله هداني ثم إلى طريقة الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني bi cheikhina cheikh saadul abihi xayru sulajatil wëcc an nabi nabi el hashimil mudari asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum mbokki lislaam asalaamaaleykum mbokki réew mi TV yéen ñi nga xamante ni yéenay ànd ak ñun saa su nekk ci suñu ay programme lu mu ci mënti doon rek fa tabaarakallah rawatina tey jii nii di bisu gàmm ñu teewee ci li nga xamante ni nii moo di plateau spécial Seyyidouna Muhammad ci bisam bu tedd bu sell wile nga xamante ni nii moo di bisu gàmm di ëhlan bi chehri mawlidi bi nga xam ni ci la yonent yàlla Muhammad juddoo mbokk yi ñuy jël nuyoo bi di ko teg ci loxo yi directeur général macha allah di président mbañik mu wasaara nuyoo gi ginnaaw bi ñu ko jaaree ci ki nga xamante ni moo di directeur Moustapha Diop. mbokk yi fa dañuy jëlee rek nuyoo jigéen ñi di ko teg ci loxo yi ki nga xamante ni moo di Adja ca Makka Cheikh ca Nimzat di ajaratu Cheikha Jatu Saane di ko ñaanal yàlla ak njabootam gépp mbokk yi noonu la ñuy nuyoo waa promo consulting gépp bopp kaw ba suuf bàyyiwuñu kenn ñi ci soleil bi ñi ci rajo bi waaye ñi nga xamante ne ñi nga promo ak waa télévision bi ñëpp waaye rawatina waa ñi nga xamante ne ni ñoo di régie di Malick Cissé moom moo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah. waaye ñi nga xamante ni ñu ngi ci coordination bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla jàmm ci ñoom ndax lépp ñoom ba mu mucc ayib tey nag uh, fi ñu ñëw dafa doy tey fi ñu ñëw dafa ala daw mi comme yeneen yi fi jaar yu ni mel ñu fi ñëwee woon muy kan ñuy dalal suñu njabootu kër maam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani kër njabootu maam na Mouhamed Fadel waaye njabootu maam Cheikh na Cheikh Saad Bou comme gi nga xamante ni noonu lañ ko xamee waaye tey ci biir dalal gi ma dalal li ma ci gën a neex mooy dafa dajale lislaam ndax man mi présenté boo nee bàyyi ma dalal Serigne bàmba Seck ñu tuddee ko Cheikhul Khadim mu nekk nii sama ndeyjoor di tàggkatu yeneen ci bu bu mag a mag a mag macha allah ñu ràññee ko ci réew mi ci li nga xamante ni mi ngi koy bëggalee doomu aadama yi Serigne bàmba doon koo xamante ni nii bu ñëwee ci alxuraan dina ci ñëw ngeen foog ni ci alquran rek la nekk ba mu jàngee alquran la demoon jàngi moom la gëstu fa yam waaye bu ñëwee ci tagg yenent bi nga jàpp ni moom ba mu duggee ci yonent bi ba tey génnul fa la yam moom Serigne Bamba bu ñëwee ci kër Cheikh Cheikh saat bu gi mu doon nga ni fa la yam bu demee kër Seydi Hadji Malick nga ni fa la bokk mu dem kër Serigne Touba nga ni fa la mënee waaye lépp nag da koo dajale rek mu doon diine ci moom muy bëgg-bëgg ci moom yàlla jagleel ko ko kooku nag lañu dalal tey muy Serigne Bamba Seck su ma ñëwee ci sama fii li nga xam ne mooy sama ndeyjoor ki fii teg muy ki nga xamante ni moo di Mouhamed Tijane Tijane nag ku ko wax xam ni mooy Serigne Tijane Alaaji Malick mi nga xamante ni ka mu doyloo muy. Cheikh ma Tidiane Cheikh ma Tidiane nag moo indi tarixa Tijaaniya waaye muy taalibe Cheikhna Cheikh Saad Bou di lépp ci Bamba sekk di topp ci moom di rakk ci moom jàppale ko ànd ak moom ci lu bari tabaarakallaahu rawatina ci wàllu way yi nga xamante ni mooy tagg Seydunaa Muhammad ñi ngi jéggalu ñëpp émission bi am na neneen mu waroon a mën demee waaye nii la ko yàlla bëggee te nii lañ koy doxale te incha allah dina baax dana neex dana yëngu mi ngi noonu Serigne Bamba du ñu sori benn yoon dañuy daal di jël kaddu gi nga xamante ni mooy kaddu nuyoo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 siwaahu jalla mumtiru al-amtaari muammima al-ghuyuusi al-aqtaari alhamdulillahi rabbil aalamiina munawwira absaari al-aarifiin bi nuuri maarifati wal yaqiin wa jaazibi azimmati asraari muhaqqiqiin bi jazabaati al-qurbi ala al-tamkiin alhamdulillahi rabbil aalamiin ala kulli haal ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bismillahi ma sha allah tawakkaltu allah la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi lay ziyaar ba di la fay nuyoo mm-hmm. di nuyo waa réew mi TV yëpp di nuyu sama rakk bi ma àndal sama xarit sama confident Cheikh Matidiane Chérif maa ngi di ko ziyaar bu baax taalibi Cheikh Mata mm-hmm. di ko ziyaar di ko bëgg baax di nuyu xadara bi ma bàyyeekoo di Cheikhna Cheikh Xadrami Cheikh Sidi Bouya Cheikh Manatullah Yarbana Cheikhna Mouhamed Fadal mu joxal ma nuyoo bi suma xalifa Cheikhna Cheikh Saad bu doomu Cheikhna Cheikh Mouhamed Taqiyullah eh, doomu Cheikhna Cheikh al Xalifa doomu Cheikhna Cheikh Saad bu xalifa Sayyiduna Mouhamed di ko ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér waaye njabootu maam cheikh na cheikh Saad bu yëpp njabootu maam cheikh na cheikh Mouhamad Validu Maamin bi yëpp tabaarakallah macha allah di nuyu nag fépp fu umma islam ne képp kuy wax shadan la ilaha illa allah waxdahu la sharika la wa shadana muhammadan abduhu wa rasulu ñu ngi lay fay nuyoo di la ziyaara di la ndokkeel si ahlan bi chaari lmawlidi chahru nabil amjadi yàlla mbégte mi na nañu ko dëkkee yàlla na mm. yàgg yàlla na sax kan moo juddu alayhi salaatu wasalaam mi ñu goreel mi tax tey ji kenn ku ci nekk doon li nga doon mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam yàlla nañu ko yàlla fayal ku fa demagul yàlla na nga dem ñu amagul tutànk yàlla na ñu am tutànk tuddee ko sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam salaamaaleykum cheikh bi ñu ngi lay ziar jërëjëf sëriñ Bamba sekk ci nuyooyu tedd yu sell yooyu nga xamante ni fa tabaarakallaahu leer na kalaama gi macha allah waaye xam bu sell bi te demaguñu fenn macha allah ndax xam naa ni tey moom dina alaa dawme tey moom dana mel ni ma li olof yi di wax naan ba mbaam jaayee mbaam ba ba nopp ni ngóor ngóor ah la waaw ba ngóor jaayee mbaam ma ni nopp ya du dem waaw loolu moom xam naa dina ko doon tey ndax man xam naa ne moom am na lu ma namoon sëriñ te tey dina dina leer Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad waaw Cheikh Baye maa ngi nuyu bu baax di la ziar euh, di jiital ci nuyoo bi nag directeur bu télévision bi macha allah ak euh, mbooleem képp ku nekk di fi yëngatu. ñu mm-hmm. nuyu adduna. ñu mm-hmm. nag sama buntu ci kër maam Cheikh Cheikh Sadio di Cheikh Makhtar doomu Cheikh Mahfou di ko nuyu di ko ziar ci gàmmu gi nga xamante ne nii moom lay def fekk nga mën di guddi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ci profité nag di ko jàll sëriñam ba Cheikh Mouhamed Badal doom Cheikh Mahfou Sahel di ko ñaanal yàlla nekk nekk ci barzaq maamam Seydina sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam dina fay nuyoo bu baax di am mm. kontaante ak mbégte mm. di ànd ak nag sama mag sama xarit sama mm. idol sama baay yàlla ak Cheikh Serigne Bamba Seck bu baax mi nga xamante nii tey àdduna uh, bu ma xamee moom moo tax wax Seck yow ñu ngi lay bu baax di la jox sa wàccuwaay macha allah jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane mm, macha allah ci kàddun yooyu yu tedd yu sell yooyu ku dul toppe kenn du la topp te ku du nanguwul toppe kenn du la nangu topp mbir mi da ngay toppe ba ko rek ñu lay topp ci li nga xamante ni nangul nga ko Serigne bàmba waaye nag tey ñu dalal tarixa boo xamante ni mbokk yi tarixa Sadiya la. tarixa Fadaliya tarixa Jeylaani lu donc mu doon tarixa boo xam ni mën nañ cee waxtaane ci diggante sët la ak maam ndax Seyduna Muhammad mooy maamam. waaye diggante sët ak maam waaye ci weer wi nga xamante ni tembe wax naa ko duma tàyyi di ko wax ci lañu sayyiduna Muhammad yàlla indilee jëmmam jile nga xamante ni mooy ngëneel ci ñun di rahma ci ñun di lépp ci ñun sallallahu alayhi wa sallam mu di chehru ramadan al bi nga xamante ni mooy chehru mawlidin ndax xam nga moom chehru mawlidin ak chehru ramadan toujours rek al mubaarak lay indi moo tax man damay jàpp sax ni maa ngi ci seeru Ramadan. Ramadan <laughs> sax mi ngi noonu. waaye Serigne Bamba euh, tey bu ñu doon waxtaanee dañuy wax Serigne Bamba tàggkatu yonent bi la. métier wax naa ci benn émission bi ma dalalee imaam tabaarakallaahu muy imaam euh, euh, góora ak ki nga xamante ni mooy sëñ Mor ci émission bi ma ko dalaloon dama ko wax ni ko. métier yëpp yëpp yëpp dugg naa ci dama génn waaye métier bii rek laa dugg muy métier tàgg Sayyiduna Muhammad yàgg ca da mhm. ngay tàggkat yonent bi tey nag ma dalal njaboot Cheikhna Cheikh Saad Bou Cheikhna Cheikh Saad Bou tàgg na bi waaye lan mooy relation wu ak yonent bi waaw euh, Cheikh bi ñi ngi lay ziare bu baax xam naa ni moom dañu ciy góorgóorlu rek ndax euh, Cheikhna Cheikh Saad Bou euh, waxal na boppam ne Euh, moom nekkul ku ñuy xam yàlla mi ko sàkk rek moo ko xam mhm. wante loolu benn xisa bu gàtt la rek boo xam moom waxal na ko boppam mhm. tey ji boo waxee waxi Cheikhna Cheikh Saad Bou ndax euh, suñu tariqa bi dafa xaw a sévère mhm. tariqa bu sévère la tariqa la boo xamante ni même bu dul tariqa bi sax loo xamul noppi ci waaye rawatina tariqa maam Cheikhna Cheikh Saad Bou te tariqa bi sax du tariqa am tariqa Cheikhna Cheikh Abdul Qadir Jeylaani la ba tey moom a ko tariqa Seydina Muhammad la mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. eh, relation kon moom relation ak maamam Seydina Muhammad mooy deret mooy deret eh, ndax deret dafay rogalaat mm-hmm. te damay faral di wax ne wala sax moo ko wax gaynde du jur muus gaynde du jur mus te cheikh na cheikh Saad bu fekkee dafa ni wa an na rasulillahi jaddi xaqiqatan wa iftixaran baxda hada uridahu muy benn euh, yonent bi mooy sa maam ñi nga xamante ne dañuy werante ne yonent bi mooy sa maam relation bi mooy yonent bi mooy maamam waaw bi mooy waaw mooy mooy yonent bi mooy maam mooy deret waa léegi su fekkente ne itam nga dem bay sikki sàkk sërif am na wala amul est-ce que dëgg la ñii ay sëtu Muhammad lañu wala du ay Aysatu Muhammad léegi soo fekkee da ngaa war a ormal wala gëm waxu mag ñi gëm wax mag ñëpp war ngaa war a mën a gëm waxi maam Cheikh Cheikh Saad ci lan ci li ma koy tënke moom moo ko tënkal boppam lahul fuxuul an fuxuul moom moo ko waxal boppam lahul fuxuul an fuxuul ba yowmal qiyaamati mooy gëleem daal du jur béy gaynde du jur muus mm-hmm. lahul fuxuul an fuxuul dañ koy donn nag ba yowmal qiyaam deret la tey jii su ma juróon tey jii sama doom tey ma nekk gawlo nekk doroobe mhm. doom boobu ba yow wax ci am day nekk gawlo nekk doroobe kooku nekk gawlo nekk doroobe kooku di ko lahul mooy lahul fuxul an fuxul ci nit ma ko fiirile mhm. kon su ma ci li ma ko déggee mooy que relation maam Cheikh Cheikh Saad bu ak maam ak ak ak ak ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam euh, mooy que euh, la ca maam sëta koy jël mhm. mooy kër la ca maam sëta koy jël te ñëpp nangu nañu ne mm-hmm. doom neex na wante diggante maam ak sët mm-hmm. loolu dafa am benn complicité bu fa nekk boo xamante ni mm-hmm. cheikh na cheikh Saad bu daal ñëpp boo ko nee jàkk nga jàng histoire da ngay xam ni kii alayhi salaatu wasalaam mooy maamam te nag bu amul benn werante te comme nag dafa nekk loo xamante ni gën na yaatu waaye man li ma ciy nang man fu ma jëm loolu laay expliqué waaw waaw man dafa am cheikh cheikh bi dafa am benn wax bu ma intéressé mhm. mooy que lahul xool daal man bu fa lay tënk sax sama lépp waaw mhm. ku ma ne cheikh na cheikh Saad bu nu mu mhm. dem ak yonent bi man ka jàngal lahul fuxul alfuxul alfuxul dëgg la Serigne Bamba moom fi mu ko teg euh, matale na ko ci benn diir bu gàtt loolu la ñuy dee xam-xam xam-xam war naa mën a jàngatal li nga xamante ni mooy askan wi lay déglu wala ña nga xamante ni ñi ngi ci yow ànd ak yow ci mbir ba tax na di nga leen ko nàmpatal xamal leen ko ye ñu yeewu ci li nga bëgg a wax ñu comprendre ko te du sori mm-hmm. du indi explication mm-hmm. te ku ne xam na ni nag tey Serigne Bamba ñu ngi ci bisu Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di gis bisu gàmm ngay tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi am na lu la yonent bi cërale mm-hmm. waaye am na loo xamante ni tey ci bisu gàmm gi ñu nekk yow boo cay dem ci sa digganteeg sang bi sallallahu alayhi wa sallam am na loo xamante ni yaa ngi koy yëg. ci mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa kan mooy sang boobooyee Seydina Muhammad. waa mooy e, gis nga képp koo xamante ne tu es en bonne hmm. war nga yëg cheikh bi war nga yëg loo xam ni bokkul ak la nga daan yëg. Hmm. dama koy wax ne nañu wàccee mbagg yi. Hmm. rawatina tàggkatu Muhammad. sallallahu rawatina yow xam nga li may expliquer. Mhm, mhm. ku ne mën nga yëkkati mbagg bu la neexee. ba mu des waaye tàggkatu Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam war a wàcc sa mbagg lu tax ki ngay way. cheikh bi. Mhm. yonent bi kenn mësu ñëw fekk mu toog ci kaw ci suuf rek lay toog. nit mës naa ñëw di ñëw di romb ñëpp fekk mi ngi toog ci xayma bi di waxtaan nag saxaaba yi ñëw mu daal ne salaamaaleykum romb dugg ci biir xayma bi. ne yonent bi laay seet Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko mooy kooku nga romb mu toog ci suuf mooy Seydina Muhammad mu daal di génnaat daanaka bi laa yum yaay xayru xalqullahi kullihim ndeysaan ci ci gàttal may man nit ku ba nit ku baax nit ku oyof nit koo xamante ni mooy li ko li ko li ko li ko euh, xulaamu rasul wax almuxtaaru xiiratu alaxiyaari almuxtaaru aali almaqaamati almuxtaaru sayidu saadaati muxtaaru xayru alaalamina hmm. muxtaaru xayru alaabidina muxtaaru xayru awalina muxtaaru xayru alaaxirina muxtaaru wallaay ndeysaan kooku ku ko ne ku ko bëgg xoolal ni nga taaroo sa leer gi leerul yonent yàlla Muhammad la est-ce que da ngaa way ay sàmba xaw ma nga ngay naagu xaw ma yooyu nuy wax sàmba mbayaan sàmba mbayaan foo fekk cheikh bi xoolal tàggkatu Muhammad ak waykatu àdduna du benn ñu nekk benn si que nag waykatu tàggat naa Muhammad bi xam ki muy way mooy kan mm-hmm. ci kaw mu xam ki muy way waaw ñu xam ko man kooku damaa toll ci moom foo xamante ni cheikh bi man bi ma taxawee buntu buntu bi ma jaaree buntu baabu salaam jàkkaarloog yent yàlla moo xam ne ñu ne ma fii la yonent bi tëdd non fekk na nekk tey bi li ma yëg moom laa doon yëg gàmmu bisum gàmmu muy juddu ga waaw heure bu gàmmu ñëwee comme comme comme tey jii tey jii niñ koy niñ koy gàmmulee nii tey <laughs> mu nekk gàmmu Seydina Muhammad nii man musuma dañ ci julli ci moom xaar xaaruma ba gàmmu comme ñu ne tey ji mooy gàmm rek mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ naa ko ba dama am benn mouvement maa ngi maa ngi leen di nuyu de passage bu tudd groupe sallallahu ala muhammad ci biir group bi chaque jour dinañ def cent mille sallallahu ala muhammad cent mille kon xam nga ne ko ñu sax ñu ngi gàmm man pour man li ma dégg gàmm mooy julli ci yonent bi chaque jour mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaye gàmmu nekkul après yi xew tëgg ak way ko nekk dem fi la neex def la la neex ñi comprendre gàmm dëgg dëgg dëgg dañuy jooy kan moo juddu alayhi salaatu wassalaam ki nga xamante ne fa hani an bihi laaminata alfadlu alladi sharrafat bihi xawaa man li xawaa yanna xamal ahmada aw annaha bihi nufassaaw mooy kan mooy maami cheikh na cheikh abdul qadir jilaani maami cheikh na cheikh saad bu maami cheikh na cheikh alxadraame borom jinne ci daaru salaam maami sa wasila borom jibbe ci HLM borom abarqum bada ma bayna alkastoor wa HLM fasibu lama bada xadraami ya zaaka alfata ibnu chibihi Hmm. doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed doomu Cheikh na Cheikh Sadou Chibi doomu Cheikh Mouhamed Xaq doomu Cheikh Xadraame doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed Malick ki ñuy wax ni mooy sama sëriñ Malick kooku moo la def ni nga mel waaw xaritu président Mbagnick Diop la kooku moo la def ni nga mel dama naan ko góor góor gi dañuy góor gi ci roq bi hmm. man ma ne góor gi ci HLM hmm. ma tuddee ko góor gi ci descente bi góor gi ci HLM waaw moom la de kooku la Cheikh Bachir wax ne moom léppam léegi-léegi la maa bay naka sor waa HLM dëgg la de ñu ne ko Cheikh Bachir mu ne abarkum badaa ما بين الكسر وأشلم أحسبه لما بدا حضرانيا zaaka al fata ibnu shibihi mu ni leer ga jolli na ca diggante HLM ak Kastoor lay leer lu mu doon ñun mu ni kooku mooy doomu xadraami xadraami doomu Cheikh Saad bu Chibi hmm. doomu Cheikh Mamadou Aqab doomu yaay Soxna Aïcha kaza di ko di ko expliqué hmm. di ko waa di ko moom ngay indi nii Malick day baax léeg-léeg nit nga xam li nga doon ak nga bokk ak li nga doon waaye bu ne Cheikh Baye Kébé. Hmm. waaw ku ko Cheikhal. ñu ne góor gi ci descente bi. wallaahi xam Cheikh Sadou Chine foo ko fa mi naan. Hmm. ñooñu boo leen ne xam ne boo leen boo leen xoolee sax dañ comprendre kan mooy Seydina Muhammad. wallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yeneen bi beneen affaire la bu baax. gis nga Baye bi Cheikh jaru sax sore. boo bëggee xam kan mooy Seydina Muhammad xoolal moom moo tax ma ne yonent bi nekk beneen affaire la parce que xool ci njabootam nga gëstu ci li may wax nag du du du yaama neex mais da ngay xool ci njabootu yonent bi demal Fès demal Bax Medina Medina demal demal demal Xawdu demal Nimzaat nga dem fi njabootu Seydina Ahmed seen deret nekk nga dem Daaru Salaam Casamance. Mhm. nga dem nga xool njaboot yonent bi ni ñuy dundee xël nga xam ne daal yonent bi kon lan la woon ak beneen affaire la woon. parce que njabootam ni ñuy dundee moo tax Bàmba. Mhm. waaw moom laa lay expliqué xam nga waykat bi defee ne euh, la ca maam sët a koy jël te maam dafa fonk sët ku weddi xool ko ña am sët gis nga cheikh bi <laughs> sam papa dafay faral di wax ne iñaan weesatoon nga ne ndaare bi moo mën a daw te gis première ba ci kanam. dëgg la kenn mënul man man li ma gëm man li may dox mooy que kenn mënul gëm ba eh, ahlu bayt rasul waa kër xadraame baxayda yi waa kër Cheikh Cheikh Saad Bouy waa kër Cheikh Mouhamed Fadel yi waa kër Cheikh Abdul Qadir Jilaani yonent bi nekkul seen maam. dëgg la. nuuru nubuwwata alayna la tabaaraka la mooy li may wax ñëwaat na bi mooy lawul fokkul mag waxaan nga ko léegi ñëwaat nga ci xista bi doo doo jëm fenn doo doo fa jaar mm-hmm. mooy lawul foxul an mm-hmm. foxul kon nag na ormal waa kër Seydina Muhammad ñii tey ji dañ leen war a dem kottu leen fóon leen ziyaara leen jooy ndax bu dul woon ak seen maam lawlaa kamaa xuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala naarin wala malikin wala wala wala wala wala mais bam sëriñ sax ku cheikh bi ku ni woon tey jii ni bu ma gisee yonent bi jàpp ca moom ku ni woon su ma gisee yonent bi ànd ak moom ni saaba ya dar ko te boo hmm. gisee gisuloo ko gis sët yi te nekkoo ca mook zéro yam boo gisal yonent bi doo def dara doo def dara ndax tey ji ñépp a ngi fëgg seen dënn hmm. eh, dafa am benn lu ñuy wax ne ana laysa huwa laysa huwa ana ana laysa huwa dëgg ana man a góor gi du yow mhm. na ñëpp ndànk nangu ne mhm. Sénégal mag ñu baax ñoo fi ne dëgg la de dëgg la de dëgg la de mag ñu baax ñu ñoo fi ne mhm. dëgg la de waaw xoolal léegi madaarisukum fi l-ilmi xayrin madaarisin wa awraadukum fi zikri ma misluhu wirdut moo ñàkk ki ñaan moo ñàkk nawle cheikh na cheikh Saad Bokor Seydi El Hadji Malick sa wér la amul fenn sa sa école nag moom moo raw yi. lan la ko wàññi. dara lan la ko wàññi. dara Seydi Hadji Malick nangu cëru ndax yonent bi mooy mu ne ko su ma gisoon sa maam ziar bi ma koy ziara comme comme comme ko parfum la bu nekk àjjana bàyyi ma jox la ko. Hmm. salaamun aleykum haajawul ishq wal wudd. Hmm. qaddin hatta qadran indahu l misk wal wurdu ñu ne ko koy wax mu ne maami chana cheikh sadbu chibi jusiitum kufiitum ahlu bayt rasulillahi fa minkum hatta al xayratu war rushdu wa saadu dëgg la de kon te ñun pourtant ñun mag ñooñu la ñu topp mm-hmm. waaye lu tax mag ñooñu nangu ne waa ka chana cheikh sad ñooy waa ka Seydina Mouhamed kon kay ñi la ñu war a ndokkeel mm-hmm. déggal góor gi ci septième gaar moo wax loolu. waaye dëggal bërëm borom màggal gi. Seexul Xadim. sama turandoo bi ñu ma tuddee bi jaaxal àdduna. nga mm. xamante ne dama naan Bamba laa tudd waaye Cheikh Saad Bou sama sëriñ. Mm. yow ko la tuddee Cheikh Matidiane Sëriñ. wallaay Cheikh Saad Bou si sëriñ. wallaay dëgg la compté wul xam nga lu compté. Mm. mooy que fii nga bëgg ki nga gëm nga gëm nga bëgg bëgg dafa doy waar. pourtant dama ko wax télé am na ku tuddoon Cheikh na Cheikh Saad Bou. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom Makarim Akhlaq. Mm-hmm. mooy sëriñam. Mhm. te day firi ba siyaag kat la mhm. yal na ko yàlla yërëm mhm. day taxaw ba siyaag daal ne sama trondoo nee na Cheikh Saad bu dëgg la bokk nañ conférence ba tay wallaay dëgg ah? bu dëgg la Sénégal nañu noppi Cheikh Saad bu Touré te xam ni mag ñu baax ñu ñoo bokk Sëriñ Bamba dafa ni dañoo ñëw ci moom li ko yóbbu nañu Xaadimu Rasul te booba tey xamuñu fu mu nekk mu ne def leen nànk léegi ma wax leen fu mu nekk ne tëgg benn place daa dane wa badrun munirun xaaba fi lxarbi summa laaha hmm. xarbi <laughs> min alxarbi shamsan rifaatan wa intishaara hmm. hmm. mu tontu ñu toog ñu toog di xaar ah, na ko yàgg na mu yëkkati lettre ba teg ko de eh. yëkkati ba daa dee jël lettre Cheikhna Cheikh Saad Bou. la xeer ne ko radatna ila man sayyiduhu qabla daara. réponse ba réponse ma ñu ni ñu àndewoon. ba. Mhm. te daa mosul ñaaw. déedéet te ñun fekkew ñu dara waaye ñoo ci gën a bari wax. commencé di génneet. Mhm. ne ku ne def fa nga gëm ñun Cheikhna Cheikh Saad Bou la ñu gëm. Mhm. te léppay baax. sama sëriñ ne léppay baax. borom jaaree ma ngay tontu Cheikhna Cheikh Saad ni ko radatna ilaa man siituhu qabla daara wa fii xiinan tasliman yunawira daara ñu ne ko koy wax mu ne salaamun ala cheikhi chiyuxi alladi lahu maqaamun rafiun wa huwa laysa yubaara ñu ne ko tuddal tur ndax dinañu dem jamono ñi nga xam ne ñoo bari wax ba mel ni man xamuñu dara mën a gi ngan ba mari kon nag salaamun ala saadin saidin mubajjalin yukarrimu alqaase man kaana jaara di ko ayaa cheikhu xus minni jawaban yadullukum ala sabaqikum fal fardu lay sayu baaraam. réponse ba ñëw na mag na réponse ba ñëw na kon ñii nangoon nañu ne. Mhm. kii deratu sayyiduna Muhammad. kon ñii la ñu war a ndokkeel tey. Mhm. cheikh bi mhm. ñii lañu war a ndokkee tey ku nekk war nga ndokkee ku nekk mhm. jullit bu nekk mhm. képp ku wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah war nga ndokkalante wantey nag boo ci jógee nag war nga dem seeti deretu sayduna muhammad ne ka ndokkeel ëllëg min chahri mawlidi chahru nabil amjadi ata bi saadi al asad xayrul wara muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bàmba tey ci guddi gi nga fas yéene gàmmu fan yow daaru salaam dogonu fi ma ko doon defee depuis ëpp na léegi vingt ans wala wala boobu sax marié ma mhm. man ak Cheikh Hadrame rek mhm. man ak Cheikh Hadrame rek mhm. man ak Cheikh Hadrame ne xam na ni Cheikh bu waree dugub tànt ñëpp dañuy daw hymne national ba la nga fas yéene gàmmoo tey ci guddi mawlud gi fa tabaarakallaahu ki nga xamante ni nii moo tabaarakallaahu moom moo di Cheikh Dramé Sidi Bouya manatullaahi yarbaan na Cheikh na Mouhamed Fadal ay man ñi may woo xanaa xamuñu ni ci émission bi laa nekk di direct doy na waar Cheikh daal Sidi Bouya manatullaahi yarbaan na Cheikh na Mouhamed Fadal amin moom nga moom dugalee ko lii lii de moom dana doy waa kooku mooy ci ci cheikh na cheikh yi duumu eh, abdiati misbahuddin cheikh na mouhamad vara bi mu fayee cheikh yi duumu doomam di eh, sëtub cheikh na cheikh yarbaana waaye bàyyi cheikh yarbaana kooku mooy magu cheikh na cheikh saad bu dayda mm. magu cheikh na cheikh manatula magu cheikh na cheikh mouhamad vara ngi ngànk kër gi nga xamante ni ñoom dañoo ngànk kër gi rek topp seen mag def ko waxu ne defuñu ko sax mag waaye bàyyi lañu ko def mm-hmm. cheikh alxadrami sidi be su a dugg tànn nga gis day jël benn loxo bu tedd ba ndeysaan teg ko ci kaw dayda hmm. Cheikh na Mouhamed va bi mi nga xam mooy caatu Cheikh Sidi boo ko xoolee rek gis nga Cheikh Sidi bu yë takk ndigili sa yaram day daw ñëpp ñuy escorté ñëpp di daw hmm. kenn du ma jege nag ndax bi ma ko dalee di dugal dara xewul hmm. Cheikh Hadrawi Sidi bi yan macha allah xam nga rek ñoom bu ñuy dugg tànt xam nga rek ñoom bu ñuy dugg tànt tabaarakallah macha allah waaw su ko defee nag Euh, maa ngi jox ñëpp dig daje ci kanam tuuti rek mhm. tabaarakallah macha allah ñu fekk ma kër Cheikh Hadrami si di Bouye mhm. ah dana yëngu ndax nag euh, cheikh bi mhm. ku ku tax nga gën koo koo gënul woon sa sang la dëgg la te ñun doomu Cheikh na Mouhamed Vadi yi ñoo ñu def ñu doon kon nag foofu la ñu fanaan tey jii insha allahu taala déggal doomi aadama ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu dalal fi ñi nga xamante ni moo di njabootu cheikh abdou qadir jeylaani wax naa la ko sànq mhm. ñu dalal fi ñi nga xamante ni mooy njabootu cheikh na mouhamad fadil ibnu mamin waaye ñu dalal fi ñi nga xamante ni mooy njabootu maam cheikh na cheikh saad bu ci ñu ràññee ko ci kàllaama gi ci tagg yonent bi ñu ràññee ko fa tabaarakallaahu ci waar wi nga xam ni fa la nekk kooku di cheikh sëriñ bamba sekk mbokk yi moom la ñu dalal tey mu ànd ak rakkam nee naa la mu feggoo ci sama ndeyjoor mu di ki nga xamante seen Cheikh Ahmed Tidiane tey njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi fépp ci réew mi fa la ñuy mm-hmm. jaare ñu ziar suñu wasila di ko ndokkale di ko màggal bu baax a baax muy comme ni mu ko waxee léegi góor gi ci ruq bi di xarit di am di jàmm ci président Mbagnick jóob mi nga xamante ni ni macha allahu moom lépp daf ñu ko yombalal moom président Mbagnick euh, di ko ziyaaraat bu baax a baax waaye di ziyaar tabaarakallaahu ki nga xamante ni nii mooy magu Chérif Cheikh Hadraame ba xëy doomu Cheikh Saad Bouchi bi muy Cheikh bu Bouya mi nga xamante ni mooy taaw mooy wasila nag ci ajaratu Cheikha Jatu Saane mi nga xamante ni nii mooy soxna ci borom kër gi mhm. tabaarakallaahu mu seexal ko doomu Cheikh Saad bi mu seexal ko defal ko lépp moom moo tax ma koy wax cheikh ca nimzaat ajaa ca màkk ma ajaratu jatu saani bi nga xamante ni tabaarakallaahu yàqul dara macha allah ajaratu cheikh Ndiaye Diop nekk foofu ca Ridis moom it di taalibeem waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar macha allah di béggee famille suñu yaay Walimata Fall gépp macha allah Baye Souleymane Diop njabootam gépp ñu ngi leen di ziar di leen màggal di ziar Chérif macha allah doom Cheikh Mahfou doom Cheikh Medbadou doom Cheikh Cheikh Saad macha allah moom Cheikh mad Raada lay baayam Cheikh Max foo ko jur Cheikh na Cheikh boo ko jur. moom alwali maana ma Coroma jigéene maamam yaay maana Ndiaye ko jur moom Cheikh Mouhamad Raada mooy baayam waaye di ziar ki nga xamante ni moo di Mouhamad Lamine Cheybata. macha allah. borom Abraar. ay général bu baax a baax sama xarit sama sama waay kenn du moom waa borom baax la waaye Chérif daa doomu Saad bu Bombaari nekk foofu ci mbuur ñu ngi koy ziar di ziar soxnaam soxna Umul Fadl min Cheikh Xaana tey boo demee Tëngéej ci bis bii ñu nekk tey jëlee tey baayam tamit noonu lay def yeneen ci bi maamam foofu ca Tëngéej moom soxna Umul Fadl mu ciy jàmbaar lool ak waa Mbour gépp macha allah jàmbaar lañ ci ndax dañ ciy ànd ak moom waaye suma xarit Cheikh Issa Sall moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax di premier magistrat de la ville de Mbour di suma lépp ak ah, Ndate Ba Ndate Balaay ba moom alaaji Balaay ko jur alaaji Balaay moom Cheikh Taalib bi moom Cheikh Sidil Xeer moom Cheikh Sidiati macha allah waaye nag moom ak bëgg Serigne Fallou moom soxna Ndate léppam Serigne Fallou la léppam Cheikhul Khadim la yàlla ko jagleel Malick kii ñu dalal tey damaa bëgg nga déglu mu indi la li nga xamante ni moom la jëlee woon këram fa mu dëkk sori na muy Thiès muy Serigne Bamba moom la jëlee woon këram nag def ko ci poosam fa tabaarakallaahu indi ko fas yéene cee ànd ak ñi nga xamante ne nii moo di téléspectateur Rewmi TV waaye njabootu kër maam Cheikh na Cheikh Saad bu ñuy ziar waa ban Seydouna Mohamed foofu ca Pikine mouvement jeunesse xaadira Chérif Baxay dañu ngi leen di ziar tabaarakallaahu macha allah képp kuy taalibe Cheikh Adrame Cheikh Sidi Bouye ñu ngi lay ziar ndax njabootam lañu dalal tey tabaarakallaahu ah waaye ñu ngi ziar ñëpp ñëpp tarixa bi yëpp xaadir yëpp ñu ngi leen di ziar ajaratu seppi kenn du maa ngi koy ziar baax a baax Sëriñ Bamba tey lan nga ma indil ci loo xamante ni tey moom nga fas yéene defoon sa poos ñëwee danga koy yebbi baatare ma ko baatare ko téléspectateur réew mi. xanaa mooy li ma wax li ma woyoon jàngu Cheikh ba Baxadaw di chi bi mhm. ba Cheikh Taalibu ye wàcc ca tribune ba. Mhm. jël micro bi nee na ñëpp tàccu Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon da ñëpp dañoo war a tàccu tey Seydouna bilaay yow bu Cheikh bi ma tiit ndax euh, Cheikh Taalibu ñëpp xam ne dafa. Euh, nekkul foofu sax moom mhm. te man bokk naa ci ñi ragal. bi mu wàccee. daa leen nangu micro bi ma tiit nag ñëpp ja tante bi ñëpp jaaxle nañu ndax euh, sang bi mësul def loolu mu daa dee waxal lii ma lay wax euh, ci télé laa nekk vidéo yi ñun ñi ñi am nañu ko waxal lii ma lay wax ma ne ma ne ko waaw waxal mu ne waxal ni na ñëpp tàccu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay lii mooy way ma nga juddoo ca màkkata ma nga yaroo ca màkkata ma nga gàddaay ba non loolu daf ma frappé Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi maamam la waxee loolu waaw akbar góor ak jigéen murit ak tiijaan ku mu neex ku mu naqari loolu mu wax lu gàtt loolu ñëpp tàccu Seydina Muhammad kon kuy seetaan télé bi na ñëpp tàccu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñëpp dinañ tàccu yeneen maa nga juddoo jamaakata ya rasulallah ma nga suufu la laay tubee يعني تعبني خطب نبينا البراوي يا رسول الله قلوب عيد البسملة والحمد لله والهيل لله ينتبه والحوقلة والعشرة إلى سداه محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأفسد في شر العديم خادم المصطفى وعلي وابنهما وفاطمة وابن ما من الذي به ختان العالم المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وقبل فاطمة سر بنا labisa labisa labisa sal waraaw yanen nabi laa ilaaha illallah mami Cheikh Sidi bu yewoon du chiibi damu yol yaangoog laa ilaaha illallah Cheikh Sidi bu yaa taw Cheikh na Cheikh Sadbu وعلي وابناهما وفاطمة وابنهما من الذي بختان والم المصطفى ابن الخمل وخبالتها أن المكن بدون Jackson caamaakataa maami Cheikh man laa mi damaa nga juddoo yam nana caamaakataa maa nga yaroo caamaakataa laay maa nga gaddaa ya maa gaddaa Mustafa maa nga juddoo wallaay caamaakataa xabruhu fi asrami sallallahu alayhi wa sallam moom sayduna mouhammad ibnu abdallah saydil kawnayni wa aalimi shuhudi saaxibu lixraaji walmiraji mouhamadou rasulillahi lawlaa ma kaana alwujudu fi lwujud walam yakun naarukun wa sujud moom rasulillahi bu dul woon ak moom wala jinaanun wala naarun wala malakun wala samaaun wala ard min alxikami moom rasulillahi lu yàlla amal ma ngi ko amalee ca darajaam moom Seydunaa Muhammad lu yàlla sàkk mi ngi ko sàkkee ca darajaam moom Seydunaa Muhammad lu yàlla taaral mi ngi ko taaralee ci darajaam moom Seydunaa Muhammad lépp lu yàlla bànneexloo doomi aadama ci àdduna mu ngi ko bànneexloo ci nafsoom ndax bu dul woon ak moom yàlla du sàkk dara lu yàlla bind ci daraja yonent bi la ko bindee moo waral ñu sàkk àjjana moo waral ñu sàkk safara moo waral ñu sàkk kilimi moo waral ñu sàkk oto yi moo waral ñu taax sàkk taax yu rafet yi waaye moo waral sañse gu rafet yi ndax nag bu ñu fàttee ni kuy jaay taar ba sa xel dem ci yaasin nga xam ni moo la gën a taaru mm-hmm. man damay faral di wax ni képp koo xamante ni nii dangaa mer ngir sa ñaawaay bul mer ndax sa ñaawaay ndax mereel ka la dàq moo tax nga ñaaw <laughs> moom na nag yonent bi moo tax ñëpp ñaaw wallaahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñëpp ñaaw mm. sa ñaawaay bu ci mere sa bopp yonent bee tax ñëpp ñaaw ndax moom rek moo fi moo fi leer moom Seydunaa Muhammad mi nga xamante ni taaram yegg na ci bu mu bu lëndëmee sax bu reewee sax néeg leer wallaahi Aïcha lépp xam nañ ko ni pusa ba ko réeroon ca néegam ba muy ñëw di seetlu Seydunaa Muhammad daa waddal pusa ba yonent bi ree mu doon lumière ci moom ngir war koo mën a niital te Aysa foogu ko ci woon xaaru ko ci woon loolu taar da koo mën a weesu mënu ko weesu Sëriñ Bamba sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen ak ah? ak yeneen ak yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni koo xam ne amul taq ndeer Sëriñ Bamba wax na ko sànq man yonent bi koo xamante ni doo dox di gestu loolu loolu loolu am na xam nga man Sëriñ Bamba li ma gën a jaaxal ci benn adat bu ma bu ma def mhm. saytu mhm. mooy laa ilaha illa allah mhm. douze araf la Seyduna Muhammad douze araf la nga xool doomi aadama di ko yàlla may ci ay sax bën bën ci koor ci yaramam douze la waaye léegi aras ni mu ko tënkee xalaqa dunia wax xawma nan bi sitte yaam boo ko jëlee nga boole sitte bi indi sitte bi boo ko boolee mu jox la douze kon àdduna ak àllaaxira bi nga xamante ni yàlla lépp ci six par six jours la ko sàkk moom yàlla suñu borom léegi douze la lay jox nga xool ni yàlla turam douze la yonent bi mhm. turam douze la boo ko boolee lépp di douze kon yàlla xanaa kon am na fu mu teg yonent bi ba ñëpp dawee nag dawal yàlla moom yàlla daa du mooy ñëpp daw yonent ci yonent bi mooy li nga wax sànq rek ma gàttal la ana ana huwa laysa huwa waaw ma gàttal la ci dama léegi yàlla yàlla am na sant hmm. muy Muhammad allahu akbar bàyyi yëg nga est-ce que boo tuddee yàlla tudd keneen yàlla lakk la may xaar boo tuddee yàlla tudd keneen mu lakk la yàlla keneen amul déedéet yàlla ak keneen. ashhadu an laa ilaaha illallah. dégg nga ashhadu an laa ilaaha illallah. koo ci teg léegi. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. kan nga ci sañ teg. sallallahu alayhi wa sallam. ashhadu anna muhammadan rasulullah. ñaata jàkka ñaata jumaa ñoo koy wax par bis kon yàlla mu sant. Muhammad yàlla leen rek la wax dafa ne carrément ne boo bëggee ma bëgg. Hmm. boo bëggee ma bëgg sama biir mbégte gi béggalal yonent yeneen sallallahu alayhi wa sallam. man pour ma bëgg dama bëgg damaa bind yonent bi pour bëgg. pour bëgg. ma bëgg bi bi waykat way waykat yi wax ngeen ko. Hmm. ba mu ba dara fi ne nekk moo fi ne bu fi dara nekk tam moo fi ne ba mu fi nekk ko wéetal dafa sàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa na ñëpp ni ko nag li may laajte kenn du ma xam waaye yow yaa may xam bu ëllëgee mm-hmm. ñëw ba ci ruux yi benn mag nee na yonante bi defaloon yàlla tax mu ne gën gi mu néef yàlla ko déy mm. yàlla ko neexoon déy la mm-hmm. yàlla li mu na may am mu ñëw ci ci ci ci ci ci ci ci ruux yi teg boobu dara amul ruux rek la sàkk teg ñëw ci ruux Muhammad ni que nag li may laajte question benn question la benn tontu la kenn du ko xam yow rek yaa ko xam sallallahu alayhi wa bàyyiwaat leen fa ba mu soob ko ba mu neex ko mu bind Aadama ak Awa di préparer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamool tax mhm. yonent bi faaw mu am fu mu jaar pour ñëw ci àdduna pour doomu aadama mën a mhm. te doguma la ba muy bind aad ba muy bind suñu maam aadama yonent bi ma nga fa ma nga fa léegi moom laa la <laughs> expliqué yi xam nga kon dafa nekk loo xamante ne yonent bi yàlla maanaam moo dëggal moo dëggal nekkub yàlla moo dëggal kennub yàlla mhm. pour yàlla ñooñ mën a xam kan mooy yàlla mm-hmm. il fallait Seydina Muhammad ñëw ci quoi kooku kooku lan moo tax ñu koy ñu dem ba àdduna neex ba jamono neex ñu bëgg a tëkkaleeg doomu aadama mënta nekk déedéet kuy tëkkaleeg yonent bi keneen mm-hmm. da ngaa dof moo tax yàlla wax ci alxuraan Muhammad إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتتبعوا بكرة واسيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah doy na waar bàyyi Fatima ak Roqaya ak Zeyna boog Ummu Kalsum ak Fatumata bintu rasulillahi bàyyi Hachim bàyyi Ibrahim moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdallah ay baayam Amina yaayam waaye Alimatu Saadiya moo ko nàmpal màkk la mm. juddoo fa la yaroo fa la gàddaaye màkk jëm Madinatul Munawwara moom Seyduna Muhammad Taayif ndijaaya nii boole nañ koo kiy dof ñu ni koy xeer Taayif ndijaaya nii boole nañ koo kiy xaj ñu koy mbaw taayif ñi boole nañ ko bandee ñu agressé ko moom yonent yàlla Muhammad waaye yàlla ni rek maa farak moom te ku mhm. farak yàlla doo mer moom Seydunaa Muhammad yàllaa ko teel ci mikaayam ni ko bëreel te Seydunaa Muhammad ba yàlla téye ci mikaay ga ka mu bëreel boobu ba léegi da ngay daan mhm. boo àndeek moom koo bareel daan mhm. boo àndeek moom ko bëgg yàlla bëgg la boo àndeek moom loo def yàlla ànd ca boo ko soppee loo def yàlla sopp loolee kon Seydunaa Muhammad rek moo fi ne te kon moo jar àndal xaatimu imaamu kullul mursalin rasulillahi bu ma koy wax sama xel day dem ci fondation ko rasul Cheikh Mouhamadou Abdallah Thiam soppay nabi moom mi nga xamante ne suma xarit la macha allah sayduna Mouhamad la ba mu jeex bind 1111 poème jëmale ko ci rasulillahi nee naa ko Cheikh Mouhamadou Abdallah Thiam li ma jaaxal ci yow booy bind point yi ba xam yow da ngay nelaw wala dafa am keneen koy dénk boo yeewoo ay poème muy bind ndax ci bind nelaw doomu aadama ci 12 heures de temps hmm. ci journée nga war ci mën a nelaw nu mu gàtt gàtt 6 heures de temps wala de temps nga nga sacrifié wu loolu yëpp bind 1111 poème te boobaak léegi matagul 10 ans. Mhm. te tabarakallaahu macha allahu doy na waar kon yow foo nekkoon. mu ne ma sama xalima su may bind ci moom day julli ci moom rasulillahi sallallahu mhm. Mhm. te nag képp kuy tagg yonent bi la booy booy tagg yonent bi waaw sëñ Bamba booy tagg yonent bi fii ak yaa ngi bind xalima gi day bind feuille bi ngay bind day julli ci moom xalima gi di julli ci moom daa gi ngay bindee mooy encre bi di julli ci moom waxtu woowu mag ñu baax ñi sax dem nañ ba wax ni ba fii yaa ngi koy def waxtu woow dootul bokk ci sa heure dund heure supplémentaire lay doon ci yow mm-hmm. Mm-hmm. moom yonent bi fii ak yaa ngi nekk ci moom waaye ñun ñuy nga xamante ni ñaata ñaata heure lañuy def ci moom ci tagg ci yonent bi ak ñuy julli ci moom guddeeg bëccëg suba ngoon kon mm-hmm. ñun bokk ñoo kenn ah? ñun ñoo kenn mi ngi noonu tey mbokk yi ñu dalal fi njaboot Cheikh Abdou Qadir Jilani ñu njaboot njaboot Cheikh Mouhamed Badou Ibn njabootu maam Cheikh Cheikh Saad bu waaye tey ki ñu fi dalal muy Serigne Bamba Seck ñu yàkkamti woon ko lool nag tabaarakallaahu macha allah bëggoon ko ci moom lool ndax dégg ngeen li ngeen fi dégg ci tuubee rawatina am na ñoo xamante ne tey Pikine boo fa demee tembe seen xol yi sedd na waaye tey tarixa xaadir bari na ñoo xamante ni seen xol a ngi sedd waaye moom macha allahu da di nit koo xamante ni dafa bari soppe léegi-léegi sax ma dégg ko mu ni man li ma am ci soppe ayeer moo ëpp li ma ko am ci tarixatul xaadir yaa macha ma koy bége bu baax a baax sa xarit bi kii tiijaan bi nu mu tuddati eh. Eh, sa xaritu tiijaan bu góor bi kii eh, damay fàtte tur bi macha allah dinaa ci ñëw léegi ca kanam ndax tur bi dafa dem samam xel ah déedéet sa groupe bi la bokk tabaarakallah mu lay jàppale lool jege yaaba am na alaaji yaaba <laughs> yaaba ku baax la yaaba dafa am fu ñu daje taalibe sëriñ Babacar si si bañ na ko ba mu ma nee ko damay jàpp décembre muy après jàngu baxayda ma ni ko damaa bëgg a jàpp décembre samedi bi njëkk avant jàng baxayda dafa ni ma fexeel ba sa bis ak sama bis bu mu dajee ndax yow sama nit nga ma daal di mujj sax toxal bis bi jàpp naa ko doonatul ci décembre bi waaye maa ngi koy xaar pour gis ko wax ko ko mhm. léegi ci laa gisuma ko nag gisuma ko gisuma ko ma woo ko téléphone ni ko yaaba man de jàpp naa bis xaaral ma wax la ko rek mun ma kañ la ma ni ko nàngam mun ma ah kon dina ma neex ba bëraloo ko ma ni ko noonoo waaye yow laa ko njëkk a wax ba bis boobu baax na ndax samay nit laa bëgg ñu ñëw ci yow xam nga ku am ay yéene ciy nitam mhm. ñu ñëw ci si yow mhm. kon ko tabaarakallaa amoo morom mu ndeysaan yëkkati ajaratu ngoy faal ngoy faal moom laa lay wax nii mu yëkkati téléphone am mhm. mu yëkkati téléphone am woo ngoy jox ma ko ma woo ajaratu ngoy màddaal ko ci yonent bi askiya ñoom ñëpp ñu kontaan mu ni mu ñu ni ko jëlal jëmm jooju nga indi ko nga indil ñu ko kooku ku lay defal yooyu ci nit ñu baax ñoo ñu nga xamante ni ni tabaarakallaa ñu ngi koy ziar bu baax moom ajaratu ngoy macha allah waaye yaaba it ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ci teraanga yoo am te defal nañu ko ndax nit mën ta may nit lu mu amul ah. nit du may lu mu gën a riche ci àdduna mooy dund te nit du la ko defal mm, nit du la jox ni la dundal te moo gën a riche ci àdduna nit lu mu amul man foofu laa nekk mais nag geste day jouer baax la yàlla na ko yàlla jàmmal yal na ko yàlla sàmm waaye Serigne Bamba ngay taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou relation yi la booleeg Cheikh na Cheikh Saad Bou lan la ak kan mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou la ca oh. gis ah bàyyi nag eh, bi loolu moom wax naa ko ci télé yëpp sama relation ak Cheikh na Cheikh dafa doy waar li tax mu doy waar mooy que wax naa ko ci télé yi man xam naa danga may laaj loo xam ni sax yow tabaarakallah macha allah xam nga ko. Mm-hmm. ndax ku ne xam ne man daara laa laa daara ja jóge waaye ma nekk doomi xayru diin hmm. ma nekk doomi xayru diin dëkk ndar diggante leew na ak Château d'Eau diggante Château d'Eau ak Looda waaye jàngee ca sanc ba kër suñu papa suñu maam El Hadj Cheikh Bachir Samb di ñaan yàlla dolli leeram eh, way juri ñoom Abu Mouhamed sàmb eh, way jur ñoom Mouhamed eh, Mor Khoudia Samb ñu ne ko Mouhamed Samb tey dafa Mouhamed Samb ak Abu Mouhamed Samb Eh, Mouhamed Sam barki démb rek bi ma demee bayti laay xaram daje nañu. daje nañu daje nañu eh, ci te li gën a yéeme maa ngi dajeeg moom ci jumaay Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa waaw mu tudd Mouhamed jàngal ma alxuraan. kon nag eh, fa laa tàmbalee man fa tàmbale waaye bi ma tàmbalee nag tàmbaleewu ma rek way dama tàmbale doon tajwid di jàng alxuraan. su ma masaan ñëw ci keppa bi fekk Cheikh Xadra bi Sidi bi toog. Mhm. ma daa dee su ma masaan a banque nii rek. dan maa dan naan ma Cheikh naa nga fay ay jàng léegi su ma message comme su ma nee der nag xam naa dinañ ma bàyyi ma am weccit léegi léeg la ñu dàq ma léeg la ñu kii <laughs> waaye mais nag Cheikh na da daan wax naan ah jëmm jooju ne der alxuraan ngeen ni yàlla noppil Cheikh Adrame waxal doo ko dégg kii li may la dégglu leen xanaa daa dee ne man Cheikh Adrame maay noppi yàllaay wax su ma waxee léeg-léeg bu gisee toogee kenn joxuma addiya alxuraan mu daan ne ah kii jàng na alquranu karim par kenn jox ko addiya Seydina Muhammad jox leen ko addiyey alquran mu jógee ma tàmm ko def ko yoolu tool <laughs> loolu moo nekk loolu fa laa tàmbalee nekk te yàlla mi ngi may ombat bi ma indi ci Cheikh Hadrami pour ma nekk géwul Seydina Muhammad ndax boobu dama xawoon a dama xawoon a zaayire wax naa ko ci télé yëpp mm. waate nag li tax man nekk taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou mm. man yàlla moo ma fayee Cheikh na Cheikh Saad Bou ba pare damay leeral chaque jour ma leeral ñee ñu bare dañuy wax ne moom de murit la sama baab moo nekk taalibe Cheikh Xadra bu Cheikh hmm. ma benn xarit da bu tudd Bamba Cuun. Hmm. démb rek laaj nañ ma question boobu. Hmm. waaw mu mel ne Bamba waroon a xaadal. Ah, dafa yem ñu bari. Bamba rek a war a doon xaadal. mi ngi noonu. waaw lu tax sama tool Cheikhul Xadim jël doomam tuddee ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaani. kon ñu mooy la yàlla di wax ne. yaa ibaadi yéen sama jaami kullukum yéen ñëpp daalu da ngeen a réer illaa man lu dul ko nga xamante hadaytuhu man yàlla maa ko jubal fastahduni da ngeen sàkko jub ci man ahdikum man yàlla ma jubal la loo xamul da nga cay noppi dëgg la maanu waaw da ngay maanu nit day maanu nit day nit day maanu ci lu mu xamul man kenn tuddee ma directement sëriñ bu mag bi sam papa xaritam dafa mel man maam sama doom tudde ko bàyyi ka be Mm-hmm. wala ma am sama doom tuddee ko Cheikh Cheikh Tidiane mi. Mm-hmm. waaye tuddee moo ko Cheikh ma Tidiane bu mag ba. Mm-hmm. ba moom laa ko tuddee waaye am na am fu mu jaar. mooy Cheikh Tidiane relation bu mu jaar waaw keñ nii la demee. dafa am fu mu relié wu. waaw man sama turandoo mi ngi tudd Cheikh Mat Bamba Thioune. yal na yàlla yokk leeram. kooku ci moom la ñu ma jël teg ma ci loxoom. mais ba ma jàngee ba pare nag ma xaw a ma xaw a ma xaw a mm, mm, euh, zaayire yàlla yàlla jël ma indi ma ci Cheikh Hadra mu defal ma li ma defal ma bàyyi àdduna. commencé na di tagg yonent bi wante nag bu ñu fàtte ne wax naa ko fépp même bu ma ko bu dul loolu sax man ki ma dama namp dama namp tagg Seydina Muhammad xam nga ci dara mm-hmm. mooy jigéen ji daan wax naan mm-hmm. and wasilati lay yawmal jasaa'i wal hashara fardun alayhi naxubukma ya ala sayyidil bashara سيد البشر يا سيد البشر فضل نبي بالمقتدر يمن محمد من شرع مولده بالبشر من لولا نم صلى الله عليه وسلم kon man dégg naa ba tey waykat yi wax naan dama doon way dégg si géeñoo man dama ko nàmp meew mi mm. tàng jër Cheikh Baye dëgg la dëgg la mu daan ma uuf teg ma ci kawam di ma jox weenam su bëggee tagg mu Muhammad mm. su ma commencé di jooy mm. mu jox ma weenam man noppi muy tagg Seydina Muhammad bayti bi mu daan taggee yenente bi eh, ma daxtu bi Cheikh Siraaj la aju Cheikh la Cheikh Taalib yaa ko jox sama yaay kon dama nàmp man way macha allah Bamba. kanta sama digg nag Cheikh na nag. ki nekk sama buntu ak moom muy Cheikh Cheikh Alxadraame man bu ma xamee Cheikh na Cheikh Sadbu. ak a baax. bu ma xamee Cheikh na Cheikh Sadbu. ba defal ko clip 2008. ndax dama daan toog nomm Cheikh na Cheikh Sadbu. te léegi du ma gis ku toog ku teg Cheikh na Cheikh Sadbu. man loolu moo ma inspiré mu ma nekkee taalibeem ma dem def sama clip. ne la ca Makka nga nim jaat. suñu waa ji ki góor gi ci descente bi hmm. borom jib bi woo ma encouragé moo ma jëkk encouragé ni ma yow yaa wax la ca Makka këram la ma ko waxee hmm. wala yu kenn ko wax lu mu waxut. dëgg la yow yaa wax la ca Màkka nga nim saat. Cheikh na Cheikh bu taal la nga noppi wax Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh bu fay la man ko ay da man commencé gu ma kooku mooy xadraame ba xayda audition. macha allah jërëjëf relation bi leer na mbokk yi Serigne Bamba wax na ko nit lu mu xamul da cay maanu ndax. Mhm. ya maanu kenn du ci yóbbu nit police. maanu kenn du ci taxaw tribunal. waaye maanu it kenn du ci woo nit tey sante kon doomi aadama yi war nañ di maanu nit ki loo xamul doo ca ba nga cay ñu lay woo wala ñu lay indi wala ñu lay dugal di la génne maanu daal mooy gàllaaju doomi aadama kon mm-hmm. dañoo war a waan maanu li ñu joxoon ci waxtu yaakaar naa ni mat na macha allah mm-hmm. lenn rek laa ciy teg eh, ci yow laa ko jëmee Cheikh Tidiane mm-hmm. mooy eh, taalibe Cheikh na nga taalibe Cheikh na nga bu wóor bu donc tey yow gàmm fu mu la war a fekk tey nag bàyyi ñu dañuy ñu ngi waajal nag dem ngumba ngeewul ci keppaaru suñu yaakaar suñu wasila Cheikh Makhtar Diop borom daaru nga xamante ni moom léppam Seydina Muhammad la bañ nañ ko bu ñu nee bëri dugg ci tànt bi danaan bu ma kenn woy na ñëpp woy yonent bi bu ma kenn woy na ñëpp woy yonent bi mu nekk koo xamante ni nii euh, Cheikh Makhtar da nga koy xool rek xam ne kii dara ñor ko kudul Seydina Muhammad dara dara dara adduna fëkkul Cheikh Makhtar maanaam li Cheikh Serigne wax léegi nii yonent bi nit ñëw na fekk ci buntu këram loolu dal na Cheikh Makhtar nit ñëw na fekk ko ci buntu këram mu sol garambu bu may lus tëdd nii jël catu garambu bi sàngoo ko mu romb ko dugg ci biir kër gi daane soxnaam soxna Maguette ñu ngi koy nuyu au ñu ko dama doon laaj ci Cheikh Makhtar Diop mu ne ko am na koo romb ne taatu garab gu mu tëdd mu ne ko moom la kon kooku maanaam dafa topp yonent bi ba ba di xool ci nii yonent bi di doxee muy doxee noonu mm-hmm. te bu ñu jógee fii mu ngi nekk ci guddeem mu nekk koo xamante ni waa ngumba di ñoom shérif ba ñoom shérif Chaye dañoo jël lépp li nga xamante ni tey mooy kàddu ngumba teg ko ci loxoom kon kooku yaakaar na ni nekkul ku ndaw mooy suñu wasila bi suñu yaakaar sa kàddu gu mujj sama kàddu gu mujj mooy que di ñaan rek na ñëpp gën a bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bàyyi àdduna dara mënu fee am lu dul bëgg yonent bi man bëgg yonent bi dafa dem ba man man man dama ci am firnde mhm. te firnde bi ma ci am mi ngi jóge ci jëmm jii mm, Sëriñ Bamba. wallaahi azim day taxaw bu ko ñu kër Balla Gaye di tagg Seydina Mohamed mu nekk dimanche. Mm. mu dem ba ci yàgg mu tàng mu ne fi ma toll ci tagg yonent bi lu ma ñaan yàlla mu am. Mm. ku ci ab aajo waxal nit ñi di ree. ma teg micro bi ma koy awoon ni bëri ñëw ci moom ne ko benn soxla laa am. ñëpp a may dégg ak rajo laa yor ma ne ko benn doom bu góor laa bugg tuddee ko Seydina Mohamed muy dimanche. bër set di leen di cinq heures ma am doom bu góor woo ko di joom na ma looy joom ko am naa Seydina Muhammad kon loolu duñ ci sori ndax mooy loolu jërëjëf euh, ki nga xam te ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane ànd ak Serigne Bamba sekk muy frère ci ñun di ku baax nag ku yaru moom Cheikh Ahmed Tidiane di ku nangu topp man li ma neex ci yow rek mooy wàcce gi nga wàcce sa bopp. Mhm. man foo ma gis mhm. ñaari loxo nga may nuyoo defaluma la dara. Mhm. donc daraja ji newu fi maqaama gi newu fi waaye foo ma fekk ñaari loxo nga may nuyoo kon ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm. li nga jàpp boo ko bàyyiwul rek dinañ lay dégg te leneen dina ñëw lu bokk. te tey yal na la yàlla defal jàmm. Serigne Bamba Seck waxtu wi xoj nañu. dalaloon la tey ci li nga xamante ne mooy spécial plateau gàmmu waaye dinañ la fi dalal ci yeneen émission yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal mm-hmm. ndax yow ci réew mi nga bokk réew mi nga bokk te it réew mi euh, Njool Fuuta dafa wax ni sëñ Babacar Sy Abdou dafa wax ni président Mbagnick ni ko mu ni ko réew mi la ànd télévision réew mi ak rajo bi mu ni ko yéen a ngi ci yéen a ngi ci réew mi ndax yéen a ngi ciy def lu baax di ko wax te loolu la réew mi aadoo te yow boobu ba kenn déggula ci dara mm-hmm. ci lu mu lay xeebee man looloo tax ma naw la yàgg nañu xam kenn fekku la ci bari na ñoo am te ni xeex nañu tànt wala àtte nañ leen wala yu ni mel yow boo amee lu metti sax di nga ko xultu wala nga xuloo ko pare caax nekk ca leneen <laughs> waaye kenn àttewu la kenn yóbbuwu la ci lenn kaay wa yaa fi waxoon wala yaa fi mm-hmm. defoon kon donc cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax sa kàddu gu mujj euh, kàddu gu du kàddu tàggoo xanaa di la remercier li ngay sonn yow it yow sax la ñu war a jëkk sant sant la ñaanal la yàlla ndax yow du cheikh bi lu ñu la si lu la tardel yëpp mooy que ci aajo doomu aadama eh, yow li li ma dégg dégg nga lu ko raw waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme mooy suñu idole eh, il faut ñuy dégg kenn tojagul sa bopp kenn damagul sa bëñ mhm. kon nag nga nekk nga nekk messager nekk missionnaire ci li nga nekk mhm. lu ñu fi xam nga ko mhm. kenn mënu fi loo jaaxal te beneen yoon nag dañuy ñëw indi benn tabar ak bokk ko ne ak ak xalam xam naa la lay daanal yow yow <laughs> affaire wayu géwal ngoyaanu la lay daanal bien si soxlaa lay indi c'est waaw c'est que c'est que c'est ay woy dama ko xam rek waaw non moo tax xam naa li ma lay expliqué ba bàyyi man ma xam du tay nag wax dëgg yàlla nag mm-hmm. xam naa parce que ku ne mën naa way ku ne mën naa way dangay ngay présenter émission mais dangay ngay tàgg yonent bi jàng kan nga yaa may dégg mais am na lu lay daaneel ci ay way dof loo xa way rek nga xam hmm. waaye xam nga jàng ñaar laa la wax xam nga way xam nga jàng mais bien su may dellu si dañuy way incha allah si soxlaa yi indi ak benn tabala. incha ñu def acoustique ci Seydina Muhammad di la ñaanal yàlla. Mm-hmm. di ñaanal yàlla borom kër gi yàgg naa dégg turam mais mosuñu gisee. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla télé bi def nañ ko suñu télé ci lañ bokk. Mm-hmm. ñun foo ñu soxlaa. ku baax woo ñu ñu ñëw. boo bëggee ku animé sa sa programme. woo nu ñu ñëw laaju ñu la paas laa ñu la dara. parce que sama frère nga. sama cousin nga. te dañuy ànd bokk liggéey Seydina Muhammad yàlla moo am fa yàlla nee na kenn amul fayub kenn. kullukum aarun illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum nee na kenn amul yàlla daal moo am yàlla mi am yàlla yàlla jox di nuyu waa régie Amady laa ci jot a laa ci jot a miin laa ci jot a déggante na sàmbali li ñu toppaloo ah, ak Seydi Hadji Malick borom gàmmu gi borom ga borom góor gi ndar ndar la da fi <laughs> di ziar itam wax dëgg yàlla waa sallallahu ala muhammad bi nga xamante ni mooy sama mouvement bi mm-hmm. alaaji yaaba nekk taalibi sëriñ Babacar si jiite ko mm-hmm. ak Adja Jojo Diouf la Cheikh Hadrame Cheikh Jojo Diouf ak waa sallallahu ala muhammad gi yëpp ñu ngi leen di jox dig daje léegi lay doon incha allah kër <laughs> biir kër Cheikh Hadrame Cheikh Sidi bu di nuyu nag euh, sama rak bi ma àndal di Cheikh Tidiane l'infatigable nee naa ko buy déglu bul xool Cheikh yow xam nga ñi ma jàngal bare na xam nga ñi ma formé bare na waaye xoolul déggoo ma naan ko Cheikh Tidiane kañ lañuy xëcc tabale yi mu ne su ma jógee fii dama yem xëcc tabale yi wallaahi non moom kay moom yal na ko yàlla lafal cat te day tagg day tagg yonante bi bu baax di am programme si waaye fu ma ko ne ba te sañu jël programme te waxu la ko te joxuma ko te joxuma ko dépense loolay topp kon nag yàlla na la yàlla bàyyeeg sa Seydina Muhammad lépp lu yonent bi di séddale yàlla bu la ci kenn kenn kenn ëppale ci barke yonent bi ñu ngi sant ñëpp di la gërëm di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla cheikh xal cheikh xadraami ba xayda ñaari xadraami hmm. xadraami ba xayda yàgg fi xadraami sidi bi yàgg fi ak suñu xalifa cheikh cheikh salim taqila cheikh man lamin cheybata hmm. yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak njabootu ahlu bayti rasulillahi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ bamba cant ak ngërëm ñeel na la ndax fa ma la woowee nga jógee fa macha allahu xam na ñëpp xam nañ ni sori na maa ngi ko jëlee maalik fu sori muy Thiès mu bàyyi koo fa ñëw bu ko neexoon mu laaj ma paas boobaa dama koy wut ndax man maa war a liggéey te maa ko war a joxe ndax sama liggéey laa bëgg mu dox ndax liggéey rek a ma ñor tabaarakallaahu kon sëriñ Bamba yàlla na la defal jàmm mu mën a tagg yonent bi nag lool xëccoowu ci xeexu ci lu luñ ko woowul demu ca man looloo ma gën a neex man damay faral di wax ni euh, yow maalik man duma ma dem fuñ ma woowu su ma gisee ku nu mel bindoo ni danga ma lay bëgg dama lay ñaari message nag laa am yoo xamante ni saa bu may jeexal émission man maa ko wax wala ma sama biir émission dinaa ko wax benn bi ci njëkk fa tabaarakallaa mooy Kani Gueye Papa Gueye xaar suma yaay bokk suma yaay benn ndey tabaarakallaa di woo ñëpp tey bisu gàmm gi ci cérémonie ba muy amal foofee ca Tiwaawan en face police ba ak gendarmerie ba foofu ca terrain ba ca station ba ca garage ba tabaarakallaa cérémonie bu mag di ci woo ñëpp macha allah chéru petit macha allah ànd kook borom këram mu di petit tabaarakallaa ñu ay taaliba cheikh moom Kani Gueye Papa Gueye xaar baayam lu mu jur ba ngay liir yóbbu na la nga aji màkk mu bëgg sayduna muhammad lool moom kan ngay papa gay xaar tabaarakallaahu moom ca aju njëkk yal ndax ajum liir la am kenn amu ko weesu njabootu papa gay xaar tarkal la yàlla na ko yàlla defal jàmm bàyyi ko njabootam mi ngi woon nag ñëpp jouru gàmmu gi nii nii nii ci cérémonie bi ci kanam ñëpp teewe fa góor jigéen mag ak ndaw ànd kook borom këram macha allahu pëti mi ngi woo ñëpp kooku mooy kan ngay papa xaar beneen bi ci des mu di suma xarit Malick di suma lépp moom Waly Ballago Seck maa ko waxoon di waajal album international boo xam ne nee naa la ndamub Sénégal la Malick du ma jug di ko wax ndamu waali du ndama ndamam ba Sénégal la ndax la mu am mën na ca ba ba muy dee waaye ku fi jëli ji ndam biti réew boo ko indee ci réew mi yow rek doo ci wéet moom nag dañ koy ñaanal ndam li nga xam ni moom mooy loolu muy wuti ji yàlla nag ko yàlla mel cinquante mille lay wër waaye yàlla na am cent mille bi nga xamante ni mooy daj dëpp gi te dina ko am xolam may nag ko dina ko am njulliteem dina ko may moom li muy def ci diine ji man leer na ma gis nga bi màggal jotee lépp luy teraanga def na ko njabootu Serigne Touba ci nag yi ci giléem yi ci paas yi tabaarakallaa waaye ci oto yi mu luyeel nit ñi gàmmu giit noonu la doxalee paas yi bari na macha allah moom waali li nga xamante ni nii mooy nag yi bari na gëléem yi bari na tabaarakallaahu diine ji amul fayam yàlla na ko yàlla sàmm bàyyi kooku réew mi ngi def lu baax di dimbali ay doomi aadama kuy dimbali nag ay doomi aadama sëriñ Bamba dañ la fi yàggal ñaan nga yàgg fi xam nga lu tax ndax benn nit bu mu teral cent mille francs téeméeri nit a ngi ci ginnaaw kooku nag bu koy def dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg fi di ko def kon waa ñu ngi lay ñaanal jàmm yàlla na yàgg ci yow di sant ki nga xamante ni moo di Malick euh, nekk foofu ci régie waaye tabaarakallaahu moom moo ak Cissé DG Moustapha yàlla na fi yàgg loolu téwér liggéey bi nga xamante ni moom la sëfoo yàlla na ko yàlla yombalal lool lool lool lool bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam coordinateur ñu ngi lay nuyu di la ziar di la màggal parce que moom bëggul may wax turam kon waa promo consulting ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen jox dig daje incha allah Serigne Bamba dina fi ñëwaat comme ni ko waxee dina fi ñëwaat ak ci beneen facette ak ñeneen ñoo xamante ni dinañ leen fi dalal te bu woyee bu ñu waxee nga nga jommi tey sax maa ko dugal fii nga xamante ni mënewu fa muy fireek yi waxtaan maa ko dugal ci domaine boobu yëpp waaye gàmm gi moo ko laaj bisu Seydina Mohamed moo ni mel waaye bu ñu jugee rek kan mooy Serigne Bamba Seck ak ci woy yeeg waxtaan weeg ni nga xamante nii moom la ñuy defee ci xalam yeeg yooyu nga xam kan mooy Serigne Bamba moom ci boppam incha allah te dina am léegi-léegi Malick cant ak ñeel na ñëpp ñuy seetaan Rewmi TV wa daanaako mulaana di leen jox dig daje nee naa mes ni men beneen yoon hiya lujjatun xadra wastama fazatin fiha alxayaa hiya allati taraaha لا تهواها هي درة بيضاء خالصة ترى فعليك أن تسعى لها فتراها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها دار الحبيب قلوبها تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها والقلب قد سكن اضطراب لهيبه لما رأى ما في البقاع سواها تلذكت من طيبها فجميعها طابت بطيب شذاها دار حبيبي قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدماء